wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa inna xayra alkalaami kalaamu llahi taala wa tabaarak wa xayra alhadyi hadyu muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra al umuuri mahdasaatuha fa inna kulla maxdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar naudu billahi min annaar allahumma la sahla illa ma jacaltahu sahla wa anta tajcalu alxazana ida chita sahla allahumma axrusna bicaynika allati la tanaam waxfadna بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت الرجاء dellusiwaat nañ ci maa taabiina fi siira muy ñu dund ànd ak taabiin nga xam ni ginnaaw saxaabatul kiraam ñoom ñoo gën ci xeet wi ndax ñoom saxaaba yi ñoo leen yar dars bi ñu génnee ñu ngi nekkoon ci asxamatu ibnu abjar muy an najashi rahmatullahi alayhi tey ñoo ngi ñëw ci bunt bi ñu mujje woon def ci dundu abu muslimul xawlaani muy abdullah ibnu sawb kenn la ci taabiin bokk ci xiyaaru taabiin jotoon nañoo gis dundam avant dars yi di def jël pause Usmaan Abi Aatika dafa wax ni laqad tafaana abu muslim fi libaada xatta akbar abu muslim dafa daan wax ni su ma jàkkaarloo woon ak àjjana amatuma lu ma dolli ci wàllu jaamu yàlla su ma jàkkarloo woon ak safara amatuma lu ma dolli loolu lan lay wane loolu dafay wane ni kooku ay farataam da leen def ba mu jeex tàkk def ay sunnaam maanaam amatul benn bunt bu muy dolli lu bees ci moom ni muy jaamoo yàlla moo xam ci julli moo xam ci woor moo xam ci jàng alquran moo xam ci saraxe boo xam ci afaalil xayraat jëf yu baax yi ñuy jëf moom da koo defa defa def ba gisatul fu mu war a dollee leneen allahu akbar mbokk yi abu muslimul xawlaani gisoon nañu ne dafa jàkkaarloo woon ak aswadul anasi nga xam ni ku bew la woon ba woote woon ni ak yonent la abu muslim weddi ko ne ko loolu mënul nekk ndax ginnaaw muhammad sallallahu alayhi wa beneen yonent mënatul nekk ñu tënku ko yeew ko ne ko weddil muhammad gëmal kii ne yonent la abu muslim bañ ba aswadul anasi jël ko fi mu mujj ak moom mooy sànni ko ci safara ngir mu dee ñu dugal ko ci safara mu mucc am daraja bi yonent yàlla ibrahima alayhi salaam amoon te mooy yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim abu muslim ñu dugal ko ci safara ba buum bi ñu takkee woon tànk yi ak loxo yi lakk na ba jeex ba loolu dañ mu génn te safara laalu ko bi mu génnee yàlla may ko mu mucc bi mu muccee nag jóge dëkk ba mu ne woon ne day dem seeti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax musul gis yonent bi bi muy ñëw ndeke yonent bi gaañu na ci gannaawam ba Aboubacar nekk xalifa mu ñëw dugg si ci Madina bi mu dugg see Madina fekk abu Aboubacar Siddiq julli ay rakk am ba pare mbokk yi abu Aboubacar recevoir ko bi mu ko recevoir ba pare mu pare mu ñëw dugg ci. jàkka ji julli bi muy julli Umar ibnul Xattaab borom basiira la woon mësu koo gis waaye mu xool ko bi mu paree ne ko mimmanir rajul laaj ko ne ko fan nga jóge mimmanir rajul fan nga jóge abu muslim ne ko minal yaman maa ngi bàyyi ko yaman umar di ko laaj li ñu defoon abu muslim ne ko maa faala allahu bi saaxibina alladi sajara lahu aduwullahi naar fa anjaahu llahu minha nan la kañu sànni woon ca safara sa def ba yàlla musal ko te xamul ni ki muy waxal moom la abu muslim ne ko huwa bi xayrin min allahi wa nicma ne ko ah, moom day ma nga ca jàmm ak xéewal Umar ne ko maa ngi lay géñloo ci yàlla est-ce que du yow ndeysaan Abu Muslim ne ko ah kay man la Umar ibnul Xattaab téye ko ndeysaan fóon jëbi bi mu fóonee jëbi ndeysaan sant yàlla ca la waxee waxam bu siiw boobu ne alhamdulillahi alladi lam yuxrijni min addunia xatta qarrat ayni bi masrai wa awdati almaxduin mbokk yi Umar daa di wax ne maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni dimbali na ma waaye maa ngi koy sant it nag ci wan gi mu ma wan ci ummatu muhammad koo xam ni def nañ ko ni ñu defoon nabiyullahi ibrahim mu mucc mu ne wa ana ahmadullah alladi araani fi ummati muhammad man fuila bihi kama fuila bi xalili rahman abina ibrahim daal koy fóon aboubacar woolu ko mu ñëw teg ko ci wetam moo ko umar ñuy waxtaan ak moom ndeysaan di ko laaj ay mbir muy tontu bi mu paree ci la ko Omar ibnu Xattaab ne yëg nga li xew mu ne ko déedéet mu ne ko sa noon boobu day yàlla alak na ko mooy génn na àdduna mbokk yi abu muslim nag léegi mi ngi des madina kontine jaamu yàllaam ànd ak saxaabatul kiram ku mel ni abu ubayda amir ibnul jaraax moom la daan àndal ak abi darrin ñoo nekkoon ay waayam ak ubaadatu bnu saamit muaaz ibnu jabal awf bnu malikin il ashja'i ñooñu la abu muslim gënoon di àndal mu tàmbale nag léegi <clears throat> di dem ci frontières yi di garde ndax loolu dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a rëy mooy dem ci frontière ngir aar jullit ñi ba noon du dugg si ci ñoom noonu la abu muslim mujj a bokk ci xare yi nga xam ne dañuy xareek ruum di takku saxaaba yi nag di génn àdduna ginnaawam abu bakar siddiq génn àdduna umar ibnul xataab fukki at génn àdduna Ousmane ibn Affan génn àdduna Ali ibn Abi Talib génn àdduna muy alxulafaul arbaa bi mu ko defee nag léegi kan mooy nekk xalifa Muawiyatu ibn Abi Sufyaan <coughs> mooy nekk xalifa mbokk yi abu muslim continue nam meloon nekk ci suufu Muawiya déggal ko benn bés abu muslim ñëw seet si muawiya fekk muawiya mi ngi toog ci jotaay boo xam ni taar taaru na ci ay sées yi ñuy toog yu demee noonu mu gis ne muawiya am na ay ñu ko jege nekk ay gardam mu gis ne nit ñi léegi ñu ngi yëkkati muawiya yëkkati bu jéggi dayo mu ragalal muawiya bew di ko dal saxaaba la te abu muslim yéenewu ko nguur gu yàgg ba muy fàtte kenn la ci saxaabatul kiram benn bés abu muslim <coughs> doxi soxlaam ba ñëw fekk muawiya mi ngi toog mu dugg si ne assalaamu aleyka yaa ajiiral muminin ne ko maa ngi lay nuyu yow mi nga xam ni yow yaa féetewoo liggéeyal jullit ñi au lieu amiral muminin mu ne ko yaa ajiiral muminin nit ñépp gestu xool ko ndax baat boobu mosuñ koo dégg waaw mosuñ ko dégg tey boo demoon ci Macky Sall nuyu ko ne ko maa ngi lay nuyu yow président bi nga xam ni yaay manœuvre sénégalais yi ñépp dañ lay xoolaat mais moom loolu la ko wax bi ko nit ñi xoolee <clears throat> ku nekk gerte naan ko amiral muminin laa ajiral muminin ne ko amiral muminin wax ko loolu abu muslim faalewu leen yëkkatiwaat baatam ne assalaamu aleyka yaa ajiiral muminin waxaat la mu waxoon ca kaw ne ko maa ngi lay nuyu yow mii liggéeyal jullit ñi nit ñi continué waat wax lañuy wax xamuñu moom lan la namm ci waxam waxaat la waxoon moom mu waxaat la mu waxoon delluwaat ci ba muy ñetti yoon nit ñi nag daa di jaaxle muawiya jàkkaarlook moom ne leen da'u aba muslim fa huwa a'lamu nnaas bi ma yaqul ne leen bàyyi leen abu muslim mi <laughs> li muy wax xam na ko ñee dañoo gis ni day suufeel amirul muminin waaye amirul muminin gis na ni am na lu muy wax ak moom peut-être message bi moom comprendre na ko bi mu ko defee abu muslim yëkkati baatam wax muawiya ne ko innama masaluka baada an wallaaka allahu amra nnaas ka masali man istajara ajiiran wa awkala ilayhi amra ganami wa jacala lahu alajra ala an yuxsina raciyataha wa yaxfada abdaanaha wa yuwaffira aswaafaha wa albaanaha fa in huwa qaama bima uhida ilayhi hatta takbura alsagira wa tasmana alajfa wa tasixa saqima aataahu ajrahu wa zaada mu ne ko yow mu muawiya mu ne ko naam mu ne ko sa misaal mi ngi mel ni sardi boo xam ne dañ koo dénk ay jur du xam ngeen sardi sardi mooy ñii sàmm xar yi bëy ci dëkku àll yi day am ñoo xam ne seen liggéey mooy bu ñu xëyee ñépp dañuy génn seen xar seen bëy jox ko mu dem sàmm ko ba guddi mu ñëwaat bu nekk mu delloo ko këram su weer dee ñu fay ko wala su at mi wàccee ñu fay ko mën nañ koo fay jur mën nañ ko fay xaalis mu ne ko nag sa misaal ak nit ñi mooy yow sardi nga boo xam ne dañ laa dénk ay jur di la fay ngir càmm gi na rafet soo ko sàmmee ba xar yi benn loruwul bëy yi benn loruwul seen kawar rabet seen yàpp duuf a ah, loolu day day nekk lu baax soo leen yaree ba xar yi yooyoon am doole yi néewoon doole am doole ñu fay la yokkal la sa fay ne ko su fekkee nag li ñu la sàmmloo sàggan nga ko sàgganee ko ba xar yu duuf yi yooy xar yu yooy yi dee yu jigéen yi jaaxle soow amul dara amul ne bu loolu amee ah waru nga càmm ga kon nag yow amir mu'minin maa ngi lay tànnaloo ci ñaar yooyu ban nga ciy tàmm muy wax ju mat a bàyyi xel ci bépp président de la république képp ku juute jiite nit ñi moo xam societé la moo xam ab état la wax ji war naa delluwaat ci yow ñun tey suñu jamono lu ñuy wax son excellence ñun tey ku ñu fal président rek mooy toogal nga tedd nit ñi torox te ki ñu fal président moom moo war a sonn pour nit ñi tedd ndax loolu lañ ko fi tegee li tax ñépp di jël seeni contribution di ko fay ne ko bul sonn ñoo lay fay wutal la caisse noire jox la ay oto nga ëpp lañu looy fayiku lan lañ ci jublu pour nga sàmmal ñu suñu sécurité sàmmal ñu suñu alalu réew sàmmal ñu suñu moomeel sàmmal ñu suñu wér-gi-yaram sàmmal ñu éducation bi sàmmal ñu sàmmal ñu sàmmal ñu ba ñépp nekk ci jàmm ndax kat yow président yëgal ni sàmm nga te kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp kuy sàmm danañ la laaj nga sàmmoon yowmal qiyaam papa dinañ ko laaj lan la defoon ci ay doomam yaay dinañ ko laaj lan la defoon ci ay doomam directeur société bi ak ña liggéeyal ndax mi ngi doon topp seen liggéey ndax yàqul seen alal ndax loru leen jigéen ji ñu ngi koy laaj ci jëkkëram jëkkër ñu ngi koy laaj ci jabaram loolu dana tax yowmal qiyaam way jur mën naa ñëw mucc fekk jabar muccut doom muccut way jur nar a dem àjjana ci misaal doom ji ne yàlla kii moo nekkoon sama baay toppatoowuma jàngaluma diine xamaluma diine lim ma jàngaloo woon mooy àdduna rek tubaab la ma jàngaloo faalewul su ma jullee su ma julliwul su ma biddantee su ma biddantuwul yoonam nekku ci moom daal éduqué wu ma daf maa élevé su ko defee day dégg baat buy wax ak moom waqifuuhum innahum mas'uluun woo leen way jur yooyu ak ña dirigé woon dinañ ko wax président de la république dinañ ko wax président assemblée nationale dinañ ko wax borom kër dinañ ko wax borom société waqifuhum innahum mas'uluun nañu taxaw dañ leen di auditer waat ginnaaw première audition bi amaan na amoon nañ chance mais tey commencé nañoo ñàkk chance lan moo tax ñi ñu diriger tey taxaw nañ mbokk yi imaginer leen ab dëkk lëmm nga doon nattale ni senegaal ñaata nit a fi dëkk 15 millions jëm kaw 15 million personne yàlla nar laa laaj ci ñoom seen lekk seen naan seen dund seen jaar-jaar lépp nekk ci sa loxo njaaloo naan sàngara agression bi xanaa xamoo bu agresseur nekkee ci dëkk bi di agressé am na une partie boo xamante ne responsable la ca waaye état am na ci partie lan mooy état am na ci partie parce que dañ koo jox ne ko sécuriser ñu suñu sécurité yaa ko yore état nommé police nommé arme nommé gendarme nommé lépp ñuy fay ñooñu ci argent contribuable kuy liggéey ñu koy dagg ci sa booy jaay ñu lay daggi patante lu nekk di ko dagg ci yow pour fay ñooñu la bu ñu sàgganee ba dëkk bi foo tourné agresseur gor nit mu dee moom agresseur bi at attey ku rey nit la koy atte mais état dinañ ko laaj sàggan gi mu sàggan ndax moo ko yoroon mooy misaalu rek yore bëy bëy bi war a lekk lekkul wala benn bëy mbëkk moroomam ba béjjénam dàmm kon sàmm bi moo ko seetaan kon abu muslim li mu wax mu muawiya lu mat a bàyyi xel la imagine tey bu jigéen ñemee taxaw ut carte ne day jaay boppam yàlla dana ko ko laaj moom ci boppam moom jigéen ji waaye dana ko laaj président lan moo tax nga daganal luwaa boo xam ne jigéen am na droit jaay boppam kooku kenn amul droit am du ci benn état bu may am droit jigéen njaaloo mu dagan amul parce que contre atte yàlla la atte yàlla kenn waru ko contre te it la ñuy daganal ndax lu dagan la déedéet mais su jigéen ñemee taxaw am boppam mën a jaay boppam ñu mën koo seetaan état ba ko seetaan am na ci responsabilité responsabilité ma dana tàmbalee ca préfet ba ca gouverneur ba ca ña nga xamante ne ñoo yore sécurité ak état dañ leen koy laaj ci dëkk ay nit mën a toog ku mu neex sàcc lu la neex ku mu neex détourné du mujj fenn loola ñuy détourné alalu ñan la alalu baadoolo yi la alalu ñu néew doole la alalu ñu néew pexe la alalu ñu néew kàttan tey ñaata ñooy dox di taxawaalu nekk ay chômeur alal bi ci réew mi bu jaaroon fa mu war a jaar danañu am liggéey mais alal boobu ñan ñoo koy jëriñoo benn parti bu ndawa a ndaw a ndaw a ndaw benn mèche parti moo koy jëfandikoo bàyyi population bi yépp bu ko defee nag loolu lan lay indiwaat day indiwaat révolution ci esprit jeunesse bi ndax jeunesse bi bu ñu jàngee ba am seeni diplôme wala liggéey ba am seen métier mënuñoo tedd mënuñoo jekk su ñu deful ndànk seen xel lu bon dana ci dem loolu loola ji ci dem yépp nag responsabilité état la ñoom la ko yàlla laaj kon nag képp ku diriger na la biir ni danañ la taxawal laaj la ci senegaal noo ko gérer noo ko àttee ndax dana yomb ñaar rek moo fa yomb am te borom bi wax nañ ci alquran lu ama am solo ñaar ñiy gën a tiit yowmal qiyaam mooy borom alal bu bew ak boroom nguur bu bew borom nguur gu bew du ragal a rey nit du ragal a tëj nit parce que day fàtte dee day fàtte alaaxira day fàtte yàlla day fàtte lépp lan mooy nekk ci kanamam àdduna innama utiituhu ilmin indi loolu lay wax lii sama pexe la sama liggéeyu nday ah maa dirigé maa nangam fàtte ne loolu su ñëwee yowmal qiyaam lan lay wax halaka anni sultaaniya man ndeke état bi ma yoroon alak na ma halaka anni sultaaniya tey alku naa maa agna anni maaliya alal bi ma yoroon lu ma neex ma def samay doom lu leen neex def sama jabar lu ko neex def tey alal boobu jëriñu ma maa agna anni maaliya kon loolu képp ku jiite war nga ko bàyyi xel ki lay nekk sa conseiller dafa war a mel ni abu muslim conseiller dafa war di conseiller président lu baax mais bu ko wax ni gars yi yow la ñu àndal yow la ñu faral yaay waaja loo wax moo am ñooñu seytaane lañ dimbaliwuñu président mais ñiy dimbale président mooy ñi ko naa ah, dëkk baa ngi yëngu de dund bi am na lu xew de président góor góorul góorgóorlu waay puusaatal boo bëggee beneen mandat liggéeyal noonu la ñuy wax ak moom waaye nga bëgg a toog non ko non yow la comme ni ko gars yi defee yow la ñuy àndal yaa yor yëf moom dootul gis ku ko contre moom dafa jàpp ne rek moom il est propre dafa jàpp ni lu mu bëgg a def da koo war a def loolu du dimbale président bëri na ñu nekk conseiller àq la ñuy lekk mooy bitaanatu suu yàlla nañ ci yàlla musal koo xam ne du la wax dëgg dalay jay nit bu ngeen di ànd doo ko jay danga koy wax réalité kon abu muslim bi mu ñëwee fekk ñee ñu sëgg ci kanamu amir muminina muawiya dañoo sëgg comme nii mu xewee tey waaye moom mu jàpp ñi dafa war a siggi pour delloosi ko ci ay njuumteem ndax mën na juum nit la kon ba mu waxee loolu nag ndeysaan ne muawiya faxtarli li nafsika ma fihi xayrun xayruka wa ajruk ne ko tànnal bu la neex nag loo xam ne sa yiw mi ngi ci ak sa fay yaay xool boo ci tànn bi mu ko defee nag Muawiya yëkkati boppam siggi noyyiwaat tey dégg na lu mu musul dégg bi mu nekkee xalifa loolu yombul ñëw ñëw wax ak président wax ko baati dëgg yombul manhaju salaf nag nii abu muslim def ñoom moom la ñuy def mooy jàkkaarlook président wax ko dénk ko waaye doo nekk ca biti di sànni ay baat de dañ koy tere kenn du taxaw ci biti naan président li mu def du yoon di yëkkat naa ko ko man xaju salaf xamuñu loolu ñoom dañuy wax ni loo koy wax jàkkaarloo ak moom nga wax ko walla nga bind lettre su la bàyyee nga mucc nga mucc am jàmm su la reyee nga dee am ne am shahada kon abu muslim corrigé na muawiya ci correction bu am teggin ndax waxu ko lii nga def wala laa nga def mais da ko wax ni sa misaal misaal bii la kon jàngee ci loolu sa misaal daal yëgal ni xalifa nga waaye yow yaay sardi bi de yaay sàmm nag yeeg bëy yeeg xar yi ñun ñii la ñun ñooy nag yeeg boo ñu seetaanee nag ba bu ëpp doole mbëkk moroomam bu kii def lii def lii def lii soo ñëwee di nga rendre compte ndax ña la dénkoon bëy yeeg xar dañ lay laaj lu xew kon moytul nga ñëw yowmal qiyaam yàlla mi la dénkoon nit ñi mu taxawal la te bu lay taxawal buntu jahannam ngay taxawal ñu laaj la ñaar rek moo mën a am nga mucc jàll nga ñàkk a mucc dem safar wala yaasu billah yàlla nañ ci yàlla musal kon képp ko diriger loolu na ko bàyyi xel bi mu waxee loolu muawiya siggi ne ko jazaaka allahu anna wa an irraiyati xayran ya aba muslim fama alimnaaka illa naasixan lillahi wa li rasulihi wa li ammati almuslimin muawiya ne ko yal na la yàlla fay ci ñun yiw yow aba muslim xamuñ la lu dul ngay conseiller ngir yàlla ngir yonent bi ngir jullit ñi kon nag ad diinu an nasiha nasiha boobu mooy ñett la ko Muawiya tegal mbokk yi loolu way abu muslim ñëw julli si jumaa ci jaamiu dimashq Muawiya ma nga nekkoon ci jumaa ja moo xutba bi mu xutbaa di fàttale nit ñi lan moo war ci li nga xam ni war nañ koo def ci gas ay teen gas ay frontière ak yu demee noonu lan moo ci gën abu muslimul xawlaani ci biir nit ñi la siggi bi mu siggi waatee ne ko tazakkar ya muaawiya annaka hammatul yawm aw gadin wa anna daaraka qabrun min alqubuur fa in jitaha bi cheyin kaana laka fiha chey wa in jitaha sifra alyadayni wajadtaha qaan safsafa wa inni uciiduka billahi ya muaawiya an tazunna anna alxilaafa karyul anhaar wa jamcu alamwaal wa innama alxilaafatu camalun bilxaq wa qawlun bilmacdila wa axdun linnaasi bima yurdi allahu azza wa jal yaa mucaawiya inna laa nubaali bi kadari alanhaar ida safat rasu caynina wa innaka rasu caynina fajtahid fi an tadilla saafiya allahu akbar mucaawiya mi ngi xutba di wax nit ñi teen yi léegi mi ngi yàqu ndox maa ngi jaxasoo xool leen nu ngeen koy defaree dex yi mi ngi duggante wax loolu ndeysaan bi mu xutbaa wax ci lu mel noonu abu muslim jóg ne ko yow muawiya la nga yëg ni yow yaay bopp nit ñi tey walla suba fa ngay mujj mooy ci bàmmeel allahu akbar waaw loolu moom ku mu neex ku mu naqari bàmmeel ngay mujj président bis dina ñëw ñu teg la ci kees muur la drapeau vert jaune rouge borom fanfare yi yuuxu tàccu way nangam nangam nangam lépp bu dee dëgg la xam nga bu dul dëgg xam nga waaye boo duggee ci bàmmeel dana leer lu munti am bàmmeel nga war a jiitam ne ko nag soo ñëwee ci bàmmeel fekk fa say loxo am dara santal yàlla boo ñëwee fekk sa loxo amul dara xam ne yàlla sa bopp mooy la nga waroon a liggéeyal yàlla boo ko lekkee fii torox nga la nga waroon defal yàlla boo ko fàttee doo tabax juma doo jaamu yàlla jàpp ne rek yow lu la neex nga def nee na déedéet mu ne ko mu Muawiya maa ngi lay muslul ci yàlla nga foog ni nguur gi mooy toppatoo ndox mu tilim ak ndox mu set ak dajale alal déedéet ne ko nguur moom mooy liggéey ci dëgg liggéey ci dëgg dëgg mooy tax ñépp ànd su dëgg amul ànd du am wallahi su dëgg amee rek ànd am ne ko wax njub wax maandu te nga toppee nit ñi la leen yàlla ji yërëmee nga yërëmee leen ko ne ko mu muawiya mu ne mu ne ko ñun faalewuñu teen bu nëx ak teen bu nëxul ne la wóor ne gaal gi yaay komandan bi soo jaaralee yoon gaal gi jàll bu diigee danga dikk xam ngeen ni commandant du du mucc kon nag góor ba li nga yor kon fexeel ba liggéey bi na sell bunt yépp na daa baax ne ko mu muawiya mu ne am na ko iyaaka zulma moytul tooñ fa na zulma zulumaatun yowma alqiyaama ne ko tooñ lëndëm lay doon yowma alqiyaam yow amirul muminin moytul tooñ amul baadoolo amul ku farag yow bul woote taxas kote bul ne ko ànd ak man lu la neex defal ku àndut ak man lu xew ma yóbbu la police tëj la déedéet ñépp ñoo yem fi yow kon nag fa inna zulma zulumaatun yowma alqiyaama mu ne ko nag yow mu góor góorgóorlul ci ñi nga jiite ragalal yàlla ci ñoom bés dana ñëw yàlla nee na ku jub day xool ca ña ko jiitu woon te baax ah abubakar jaar na fi musul dégg kàddu googu umar noonu kon nag jaaral fa ñu jaaroon bis boo bëggee jël nguur am santiment du dem nguur santiment yoru ko li ko yore mooy li yàlla bëgg li yàlla digle mbokk yi abu muslim di muy wax pareegul muawiya wàcc daa di koy fóon teg ko dënn ne ko ko yarhamukallah ya aba muslim wa yajzika anna xayral jaza ne ko yàlla na la yàlla fay moo koy imagine leen kàddu gi ku ko waxoon président tey foo jëm kàddu gi ku ko waxoon président foo jëm boo moytuwul boo ko waxee suba ak jàmm nga dem sàmba Diéry Diallo xaw ma nag da ngay visiter xaw ma da nga fay toog waaye di nga dem ku waxoon lii président ginnaaw suba boo moytuwul nga dem digg ñu dig la xaw ma lu ñu lay digg dañu lay dig wala dañ lay dëj kon yu mel nii baat la yoo xam ni dañu ko soxla dañu ko soxla di ko waxante beneen yoon kon abu muslim al xawlaani nekk koo xam ni dafa jël dundam di conseiller njiitam réew di ko wax li mu war a def benn bis toog nañu ñaari weer yoo xam ni nit ñi xaalis bi ñu waroon a jot ci baytu muslimin xaalis boobu ñëwul mu mel ni kees yi dafa dafa dafa dëppu walla boog am na lu xew bi nit ñi toogee ñaari weer ci kibaaru saxaaba yi ña daan xare nga xam ne ku nekk am na lu ñu war a fay par weer ñiy liggéey ku ne am na lu ñu war a fay par weer mbir mi dem na ba ñaari weer ngurum ngurum ji bari waaw lan moo tax boobu ba léegi fayuñu am na lu xew de rek abu muslim ñëw seet si muawiya ne ko yaa muawiya inna hada al maala laysa bi maalik wala maali abika wa ummik fa bi ay xaqin taxbisu an innaas ne ko mu muawiya mu ne naam mu ne ko alal ji day wax dëgg yàlla du sa alal de du alalu sa wayjur bu góor ak bu jigéen kon ban àq nga am ci téye ko ñu war a fay ko seen xaalis te yonent bi nee na aatil ajira ajrahu qabla an yajuffa araqa ne ko ki la liggéeyal fay ko balaa ñaqam bi soo liggéeyloo nit jour journée ngeen liggéeylu 4 heures la yem buy pare fomp sol yéreem rek nee ko jàpp xaalisam semaine ngeen séq kañ la semaine bi jee xam nga ko suy pare rek tegal ko xaalisam weer ngeen séq su weer wi dee suy pare tegal ko xaalisam waaye nga war koo fay xaalisam di ko dawloo di ko sonal yonant bi day tere loolu kon nit ki yonant bi nee na li nga ko war a fay fay ko ko balaa ñaqam di fen fendi ndax coono dafa metti leel bi mu ko defee nag wax jii mu mujj a wax nag nekk wax ju metti nag Muawiya ndax bi mu ko ne alal ji du sa alal du sa alalu yaay du sa alalu papa lu tax nga téye ko ba léegi ndeysaan nag Muawiya foofu nag xolu nit gi ñëw nag nga xamante ni commencé naa nag yëg boppam nag bi mu ko defee nag mu Muawiya xar kanamam ñàng nit ñi commencé di ko xool foog ni lan mooy xew moom daal abu muslim ma nga continuer di wax nit ñi commencé nañoo jóg Muawiya na leen toog leen seen place toog leen bu kenn jóg bi nit ñi toogee foog ni Muawiya day ñëw dal ci abu muslim Muawiya wàcc kaw min bar bi dem jàpp jàpp lu tooy xëpp ñëw bi mu ñëwee julli ñaari rakka moom Muawiya yéeg ci kaw min bar bi tagg yàlla sant ko mu ne inna aba muslim qad zakara anna hadha maal laysa bi maali wala maali abi wa ummi wa qad sadaqa abu muslim fi ma qaal wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul alghadabu min alsheytaan walsheytaanu min annaar walmaau yutfiu annaar fa ida gadaba ahadukum falyagtasil ayuha nnaas uxdu ala utiyaatikum ala barakati llahi azza wa jal allahu akbar abu muslim moo mën a wax dëgg waaye muawiya mooy ko jub gi nga saxaaba yi kenn melu ni ñoom alal jii du sa alalu ndey du sa alalu bàyyi lu tax nga téye ko Muawiya mer ndax li ko mer la mooy li nit ñi jóg waaye kii li mu yëg xam naa rek ñu ko jege kii li fa ëppan ah, kii doo ko dóor kasoog président kii doo ko dóor perpétuité ku nekk di wax Muawiya xaw a mer seytaane mën na ko mu daw wàcc bar bi bàyyi xutba bi dem jàpp bi mu jàppoo ñëw tagg yàlla sant ko ne eh yéen nit ñi <laughs> abu muslim li mu wax dëgg la de alal bii du sama alalu yaay du sama alalu pàppa du sama alal alalu jullit ñi la maa ngi leen di waxal benn xadiis bu ma dégg ci yonent bi mu waxal ko boppam ne yonent bi nee na al ghadabu min ash-shaytaan nee na mer ci seytaane lay bàyyi ko am na koo xam ne bu la jegee foo tollu da ngay mer ndax du la wax lu baax waaye booy coob ko lekk ko kii dalaa yàpp nit doo ko wax lu ko taxa a mer même bu ñu ko waxee dëgg dalloo ko ne ko déedéet sëñ bi tamit <laughs> lim la wax dara nekku ci vraiment dala ko war a wax njaboot la léeg-léeg mere doom mais nañ ko ni yowit doom la daa juum nangam léeg doom mere papa nañ ko ni dafa juum nangam nangam nangam kon Muawiya nee na yonent bi nee na mer ci seytaane lay bàyyi ko loolu tax bu nit ki meree bët yi day xonq lu mu jot dóor la ko kan ngay gis fi mu rey nit te merul waaye ba mu reyee nit rek seytaane day génn bu génne rek mu rëcc ko da koy rëccu kon kuy def musiba mere la yóbbu waaye dafa bëgg a jàngale ne boo meree jàppul bu fa ndox nekkee wala nga naan ndox bu dee da ngaa taxaw toogal bu dee dangaa toog ñuy wax nga mer tëddal jàppul gis nga jàpp ndox day fay safara seytaane safara la soo meree day ñëw ci moo tax mu ne wa mi mina naar te nag wal maa u yutfiu naar xam ngeen ni ndox day fay ki ni ñu koy waxee safara kon nag ku merati ci yéen na jàpp ne ay yéen nit ñi ñu ne waa mu ne dem leen trésor ñu fay leen ci benn heure la abu muslim réglé affaire bi mu ne demleen leen baytimaal muslimin ñu fay leen kon abu muslim taxaw na taxawaay bu diiñ pourtant ñameroon mujj nañoo kontaan ndax seen situation regle na lu mel noonu damay wax ni njiitam réew su defoon la ko war ñi koy opposé la war a gën a def xarit gis nga ñi lay opposé mooy ñi lay wax say njuumte opposition dara nekkewu fi dara lu dul xool yu bon yi rek te yow da war a gis yi bon say partisan nekkewoon fi lu dul xool yu baax yi rek te yow mënoo dëkk ci xool yu baax kon say partisan même bu ñu lay waxal sax nga di ko dégg gën a la sóor opposition bi chaque jour li ñu lay waxal ah pourtant pourtant ngóor si li mu wax dëgg la de waa ji ah réew mi dana dem en faillite danañu am dette danañu nàngam bàyyi xel loolu da ngay xam ne gis nga sa noon comme dañoo jàpp ne opposition noonu la noonu boobu mooy ki gën ci yow nit mënut a nekk ku parfait à cent pour cent kon ki lay waxal moo tax tubaab yi di wax nii dañuy woote budget opposition bi ñu utal leen dara utal leen place jox leen kàddu parce que li ñuy wax état da ko soxla mais bu fekkee lu ñu wax rek ñu ne du dëgg dafa soxor dafa contre dafa bañ non du noonu ñiy jege tey wax loolu ñooy ñi yées ñiy wax sa njuumte mooy ñi lay dimbale fooy teg sa tànk yoon boo ciy jaar bu amee ay dëkk. ngay teggi tànk léeg-léeg nga juum ki ñëw naan la dëgg mi ngi ci yoon bi mu ngi ci yoon bi kookoo la bëgg mais ko naan non président yoon bi lépp a ba da ngay ba jàng ni i sëkk fekk dëgg jam na la bala dëgg di jam ba nga koy senk nag fekk mbir mi mbir mi daal dina wes mbokk yi abu muslimil nii noonu la dundee ak muawiya tubnu abi sufyaan di ko jubbanti di ko jàppale taxaw ci wetam bañal ko gàcce ëllëg loolu moo tax muawiya fu mu tolloon day sant abu muslim ndax muawiya dafa nekkoon koo xam ni dafa amoon hayba dafa amoon personalité dafa mënoon a wax dafa déggoon arab dëgëroon ku mel noonu nag il faut mu am ku nekk ci wetam ku ko gën a dëgër di ko wax dëgg ndax buñ ko dul wax dëgg rek mën na saaraan te bu saaraanee lu bëri mën na yàqu moo tax nit ki gën ci yow mooy ki lay delloo si ci baatu dëgg soo amee jabar bu la koy defal santal yàlla soo amee njaboot bu la koy defal santal yàlla waaye bis boo toogee xool sa ndeyjoor xool sa càmmoñ gisoo ku taxaw naan la it laa bu yeboo nga xam ne yaa ngi ci yoonu seytaane waaw noo munti toll koo munti doon foo mun ti taxaw il faut nga am ku taxaw sawet ku la naan déet déet il faut mu am waaye nga bëgg a taxaw rek di dem rek di dem rek bu yàggee gumba ngay doon te gis nga suñu président yi jamono jii loolentu fas lañ leen takkal seen kanam rek la ñuy xool du ñu gis seen ginnaaw du gis dara loolu kenn du ko def ngir dimbale sa réew kuy dimbale sa réew da ngay xool yu mel noonu loolu moo tax mbokk yi mu muawiya di ñaanal abu muslimul xawlaani fu mu munti toll yal yàlla fay ko bind la boo xamante ni war nañ cee mën a jàngatee lu bari ci wàllu teggin ci wàllu jubbante kuy diriger koo munti nekkal ak hayba boo ko munti jox su juumee nga jàpp juum la rek ñëwal toog ak moom jox ko cëram ne ko lii de damaa jàpp ni def nga ko waaye njuumte la su ko defee même bu meroon bu toogee ba guddi xalaataat dana xam ne lii nga ko waxal moom mooy dëgg mais ku dul juum amul yàlla bindul ku dul juum ñun ñépp dañuy juum yonent bi dul juum yàllaa koy conditionné mooy wax ak moom waaye ku dul moom mën ngaa juum kon kooku mooy abu muslimin xawlaani yàlla nañ ko yàlla fayal fayal ñu sahabatul kiram incha allah ba dar si biir ñëw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. غرباء غرباء غرباء